waar dañoo bàyyi suñu réew ñëw ci réewum jàmbur kon ñun booloo encore une fois dafa ñu war di leen ñaan tamit ngeen ñaanal ñu yàlla suñu boroom defal ñu tawféex ak wér ba lii ngeen ñu dénk ñu yeggale ko foo xam ni da ngeen ci am mbégte ndax ñun loolu mooy suñu mébét yéen nag seen jaan wàcc na ñun ñoo ci des yéene bi ñu am ci association bi mooy mu nekk bi gën a am tour ci kàddu ak jëf ci biir brecha wala sax ci biir Italie kon encore une fois réunion yi xëy na dinañ xool nu ñu koy modolaare ba mu bañ di jege mais ñu ñëw ci réunion yi di bokk ci débat yi mais surtout di bañ di amee cotisation yu bari ndax loolu mën na xëy na di indi jafe-jafe yi kaddu yi rek laa bëggoon a yëkkat di leen jaajëfal di leen ñaan it ngeen ñaanal nu yàlla woyofalal nu yen bi hmm? mais daal encore une fois na ngeen jàpp ni ñun ak yéen yéen ñoo ko bokk président je vous remercie. ma ne ñaari kàddu. ma ne ñaari kàddu rek. ma ne yombal nga ko de. yombal nga ko de yàlla baax na yàlla mooy. bon métti na nag nga liggéey wàcc comme lu wax sànq rek nga liggéey wàcc tamit nga bëgg a ñëw rek ñëw xaw naa métti mais nañ ci jàpp rek. parce que tamit mën nañu am nañu bari ñoo xam ne man à travers association yi wala daayira man maa tax moo tax ma xam leen bu doon damaa toog suñu kër rek sama kër rek mën naa am du ma leen xam donc li may wax toujours nañu gën a jege association yi ak daayira yi parce que c'est très important

waxna ka sank si si si si si si Boubacar ak euh, Matar parce que Matar dafa am dafa am positif dafa bëgg li muy def ni té man vraiment ni ma ko waroon pour am yu bari yu mako mëna jappalé ci ligéyam def mako franchement et il s'est très bien débrouillé de tout seul kon bu amé ku melni Boubacar ci wetam

def na ko ñoo xam ne macha allah am nañ ci moom yaakaar bëcc ñëpp daal bëcc ñëpp bëcc ñëpp seega yegg si na macha allah yàlla nañu yàlla jàppale daal yàlla nañu yàlla jàppale te ngeen jàpp jërë ngeen jëf incha allah dafay feeñ bu yëpp liggéeyu groupe lay doon. te daf lay yokk expérience. ba nga xam ne lii Alassane wax yéen association bi. kon yow jàppal ne yow yaa ngi fi nga nekkoon président mu ngi ko mu nekkoon ji bi moom mu ngi fi nga nekkoon. Mm-hmm. suñu ambition mooy. association bi mu avancé mu jëm ci kanam.

publicité parce que lu am association hmm. te di leen ñaan Adama aussi ngeen jàppale ko. ñun ay ñu jàppale ñu rek ñun suñu kéemtulaay kàttan dinañ ko jéem def lu jëmale association bi incha allah loolu daal mooy suñu tànk. bu fekkoon ne amuñu ambition wala amuñu maanaam volonté bi ñu sax présenté parce que yàgg nañu di proposé yàgg na yàgg na parce que mot na presque ay presque mën naa ne am na cinq ans tey la tey la ko yàlla dogal donc ñu ngi tàllal suñu loxo rek surtout di tàllal suñu mataala jàppale ñu daal di jox bi incha